tour la boo xamante ni xaw ma boo xam ay mbokkam ñoo ko ko jox wala moo ko jox boppam waaye sant yàlla moom yaakaar naa ni jaam bu nekk. Mm-hmm. war na koo def saa su saa su xëyee wala saa su toogee rek war naa mën a sant ki nga xamante ni mooy suñu borom subhaanahu wa taala euh, sëriñ bi ma lay nuyu bu baax bàyyi la nga présenté wu mbokk internet yi wax leen kan mooy sant yàlla.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 waaw sant yàlla dafa nekk jàmm bi yàlla boo xamante ni euh, suñu borom daf ko xéewale mm. te li ko suñ borom xéewale mu gëm ne lii suñu borom moo ma ko xéewale mu toog moom it jëlaat li ko suñu borom xéewale mu delloo ko di ko sant mm. ndax li mu ko may mënu ko kaa sant ba mu jeex moo tax mu dekkal tur boobu feddala boppam ne moom mooy borom sant yàlla mm. nit ñi tamit di ko dàkkantele borom sant yàlla ndax moom képp ku mu jëflante rek dana laan boo ma sant sante ko yàlla ba ñëpp di ko woowee boroom sant yàlla. Mm-hmm. Ah, loolu moo indi borom sant yàlla. Mm-hmm. Euh, tey nga nga nga dugg ci wàllu ñaan wala wàllu seet euh, lu mel noonu kañ nga ci dugg ak nu la dukki ni mu la dukkee. waaw man wàllum seet ak wàllum faj bi maanaam ni mu duggee. Mm-hmm. Euh, doy na waar doy waar goo xamante ni mën naa ne buñ koy wax fii sax. lu doy waar lay doon. Mm-hmm. parce que man dama amoon sama métier daan yëngatu si géej. Mm-hmm. waaye nit boo xamul rek yàlla fekk ma fa ma nekk. ma daan liggéey si géej. Mm-hmm. mu jëlee ma si liggéey boobu indi ma samp ma. man sama maam foore yu mag la yoroon foore bu mag sax si Saalum yàlla def euh, moom mi yoroon xam-xam boobu xam-xam boobu moo ma dab. tey jii ma si dimbale jaamu yàlla yi. sa maam boobu nu mu tudd. sama maam boobu. yàlla na ko yàlla yërëm seddal ay yaxam mu ngi tudd Kéba Lo dëkk Saalum waaw. fan ban dëkk ci Saalum. Ndofane euh, mi ngi dëkk Ndofane. Hmm. waaw kon Ndofane ku fa taxaw laaj Kéba xam nañ ko. waaw waaye moom dafa nekkoon ni koo xamante ni forêt boobu. Hmm. ñi ko xam bëriwul parce que dafa nekkoon ni ku xeebu ni ku xeebu la woon boo ko gisee day ndeysaan doo ko foog walla cër bi nga ko war a jox doo ko jox. Hmm. ndax ni mu tolloon ak doyoom. waaw parce que ak li ko suñ borom mayoon. Hmm. waaw loolu moo taxoon boo ko gisee doo ko mën a ràññee ba si foore boobu sax ñu bëri mën naa ne ràññewuñ ko. Hmm. ñu fay dem ñu si bëri ay kilifa lañ. waaw dafa ñëw du fa ziar jël see ay bagages. Hmm. léegi yow ci lan ngay def da ngay faj da seet wala dangay ngay ñaanalaate parce que ñett yooyu yëpp dafa mel ni ku ci nekk soxla na ko waaye du benn ñu am na ñoo xam ne dañoo tawat. yëg ci seen i wér-gu-yaram ay sëf yu ñu leen def wala liggéey bu ñu leen liggéey am na ci ñoo xam ne dañoo feebar feebar boo xamante ni tey euh, lu ci bare bare bare bare dañ naan sëriñ si duñu ko man yow ci lan ngay def da ngay ñaan wala da seet wala da faj. waaw man ci li may yëngatu daanaka daal bi maanaam man naa ne bari na bëriwul. Hmm. waaw parce que euh, suñu borom daal lépp moom lay liggéeyal parce que bépp ajo boo xamante ni ñëw na rek incha allah. Mm. dinañ ci jéem kéem kàttan mm. waaw ak bu mu mën a doon nag dañ ci jéem lu ñu lu ñu man mm-hmm. dañuy seet dañuy faj waaw mm. dañuy seet dañuy faj mais ci kàttanal yàlla daal képp koo xamante ni daal euh, jano ngaa ñun ci kàttanu yàlla bu dee luñ man la dina dañ te bu dee ci wàllu sëf yooyu ngay wax mm-hmm. ak wàllu liggéey yooyu bi maanaam nit ñi ma leen di xamal ne li leen di jàpp bi maanaam du luñ ko foog mm-hmm. du wàllu sëf du wàllu liggéey jamono ji daa am loo xamante ni dafa bëri si nit ñi te dafa rax nit ñi te nit ñi xamuñu ko. muy lan muy nitu guddi. lan mooy nitu guddi. nitu guddi mooy bi maanaam dëmm. dëmm ñu bari nee nañ amul. dëmm naan amul dafa fekk jàpp leen wala ñoom xamuñu luy dëmm wala dañ demut fa mu amul wala ñoom dëmm da leen sonal. parce que ngaa gis dëmm. man laa la wax dëmm su ma jubee. nday hmm. arrière. ba xam mos nga koo gis. déggoo lu ma la wax. déggoo dama dëkk ak ñoom. ma ni ba xam mës ngaa gis dënn dëmm. déggoo li ma la wax dëmm dama koy gis ni. donc di ko faj ci nit. ma ni sëñ bi dama bëgg a xam ba xam mës ngaa gis dëmm maanaam dëmm gis nga ko. waaw melokaanu dëmm nan la mel. melokaanu dëmm. Hmm. comme nit comme nit yow ni nga mel. comme kàbbu ni ni mu mel. noonu lay mel. Hmm. yaa ngi dégg. Hmm. moom lan moo ko neex bëggul benn doomu aadama di ko féete kaw moom li mu bëgg moom mooy féete kaw. moom mooy gën a am boo xoolee ci Sénégal tey ji ñoom ñoo fi gën a riis ñoom la yàlla gën a wërsëgal. ñan dëmm yi ñoom bëgguñu kenn ku leen ñoom dëmm yi. yow da mais mais bi man li ma jaaxal mooy euh, am na ci benn émission bu amoon ñu dajale ay sëriñ yu baree baree bari mais tey indiwaat nga beneen boo xamante ni jaaxal na diggante rab ak jinne ak dëmm ñett yooyu te ñu ci bari nee nañ euh, ci ci ci wàllu wàllu ñaan ak yu mel ni rab amul dëmm amul jinne rek moo am ndax moom moo ne ci alxuraan léegi yow loolu lan nga ci mën a wax. waaw wàllu woo gis nga jamono bi. Mhm. bëri na tey jii sëriñ yoo xam ne ñu ngi toog ci presse bi di génne. Mhm. xamuñu liy xew xamuñu liy am parce que dafa bari ñoo xam ne dañoo sànq daa am lu leen sànq. ñoom sëriñ si waaw xam nga li leen sànq bi maanaam mooy lan. Mhm. dafa am bi maanaam jinne yoo xamante ni. moom la suñ borom daan tukk si alquran boo demee si xulo yi illee andu nafaru min nafaru minal jinni mm. fa xaalu inna sami'na saar woo boo fa demee jinne yooyu nga xamante ni moom la suñ borom doon tëkk mm. jinne yooyu dañ leen naan jàpp ci àll bi ci foore yi di leen di leen tëj fii si île yi ak rab yi mm. rab koo fi gis sëriñ boo fi gis tey jii muy takk jaan sëriñ boo gis muy takk jaan jaan rab yii lay soppali ko jaan Mm-hmm. wala nag moo tax eh, rab loolu la gën a bëgg rab am na man mi damay jàpp rab di ko tëj il ndakaaru gi li ngay gis nii yëpp il yi nga fi gis yëpp mm. dafa am ay rab am ay jinne dañ leen fay tëj da jàpp jinne jàpp rab mais rab yooyu ak jinne yooyu baaxuñ moo tax mais jinne dëgg nag dafa am parce que jinne dafa am ak jinne jinne dafa am ak jinne jinne waaw luy loolu luy def jinne dafa mm. am ak jinne Ah. parce que ñaar la. Hmm. parce que melokaanu jinne dëgg dëgg dëgg dëgg bëri na tey sëriñ yoo xam ne ñu ngi naan damay faj jinne damay faj jinne am naa temps de jinne loolu ay fel la benn melokaanu jinne man mii laa la wax de su ma ko gisee rek damay am problème. parce que leer gi nekk ci moom leer gi ko suñ borom defal. Hmm. mel na noo xamante ni yow bu jëlee yow di nga jommi wala bu fekkee dafa nekk si yow dafay liggéeyaw mission. mais ñu bari dañu naan am nañ ay jinne sëriñ yi kon xanaa yow amoo jinne loolu yëpp ay wax la déggoo man am naa jinne man moo ma jinne bi mais damay liggéey ak jinne mais liggéey yow maanaam booy liggéey ci jinne ci nan liggéey ci nan laay liggéey moom mhm. xam nga bi maanaam doomu aadama def miracle doomu nii nii nii mënut a mais comme yow sa liggéey waaw xam nga tey jii xam nga lan moo indi miracle mhm. hmm? euh, yàlla dafa xam ne tey jii doomu aadama mënul indi miracle te jinne may na ko moom muy def miracle mm-hmm. loolu moo tax yàlla jël jinne ak doomu aadama boole leen mm-hmm. ñu war a mën a doxal mission bu ñu doxalee mission suñu borom pour doomu mm-hmm. aadama yi mën a delloo si seen xel xam ne kiraama yi ñuy gis ak miracle yi ñu gis ñu xam ne dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg yàlla am na ñu mën a delloo seen xel si seen borom yaa ngi dégg waaw mais ñii naan ñëpp ay am naa nangami jinne loolu yëpp ay fen la wala ñi naan ñëpp dañuy faj ay jinne su mel ni Cerno Mulay Saw korom ak fay. Mm. ñoo ñëpp dañuy wax lu leen neex fajuñu ñu jinne Thierno lay sew ay rab lay faj mais fajul ay jinne rab ak jinne lan mooy seen différence. rab ak jinne lan mooy seen différence bokkuñu. kon Thierno Moulay euh, am na xam-xam wala amul xam-xam. Thierno Moulay. Mm. am na xam-xam. am na xam-xam xam am dafa uute. da mm. déglu xam-xam ak mayu yàlla dafa am. xam nga lan mooy mayu yàlla yow ban yàlla la am. mayib yàlla waaw mayib yàlla yow mos ngaa am koo xamante ni dafa nekk ci jafe-jafe euh, feebar ba yëg ni feebar na nga faj ko. man laa la wax man. Hmm. nekk naa koo xamante ni benn kilifa feebar na laa la wax ni ba nekk si dugal diggante dund ak dee. Hmm. te liñ ko def nit guddee ko defoot te boobu dañ ko jàppoon dugg ko manque yaram bi manque deret ji manque deret ji ba li ko dese si kaw suuf bëriwul. Hmm. man nag ci laa ñëw nii nii rek. te mu ne mu limal ma ay plus de sëriñ si Sénégal fii mu ne ma dem na si ñoom dépasse si moom xaalis yu bari ma jonoog moom bi ma ko tiimee keroog bés boobu si armel laa fi naan juróom-ñaari fan def lu may def ma ne leen kii bu xëyee dina dox te mu leen di gën a guddi fan yéen ak njabootam. ci armel yow yaa dem fanaan ci armel man su ma bëggee liggéey dëgg. maanaam lan nga liggéey kooku lan ko liggéeyal euh, ba mu ba mu ba mu ba mu ba dem ci armel mu jaral la nga fanaan fa ba mu dellu siwaat ba wér. waaw xam nga souvent ne suñ borom. Hmm. yow boo ko jébbalee sa bopp boo ko jébbalee sa bopp. Hmm. moom moo lay aaral boppam. yaa ngi dégg mais yow boo jëlee sa bopp jébbal ko sëriñ si. Hmm. suñ borom day toog di seetaan kooku nag. moom kon wax nga wax ji mooy maanaam ñi nga xamante ni dañuy jël seen àdduna seen lépp wéer ko ci sëriñ si. waaw ci yàlla moo gën a ëpp doole. wéeru ci sëriñ fuuf kon kay jaratul yéen ñëpp kenn di ñëw ci yéen di di di ñaanloo wala yu. da ngay déglu kenn xamul parce que ñaanlu yàlla suñ borom moo ko indaale mais daaf ku ci nekk rek ak lu mu lay. ci lan ngay ñaanee parce que yow tey maa ngi gis lii nga yor yaa ngi yor lu mel ni gennu nag yor béjjën yor ay ay ay kii ak yu mel noonu yii ban njariñ laam waaw xam nga lii njariñam. Hmm. bu ma ko waxee taxul mu amal nit ñi njariñ. non du man nga koy wax mais da koy wax pour ñi nga xamante ni dañ lay seetaan. bu ëllëgee ñu mën a xam ni kat ah borom sant yàlla mii kat vraiment dañuy dem seeti ko parce que gis nañ li mu yor nangam nangam sàmm parce que xam nga nii ñoom ñiy seetaan ñëpp. lii nii hmm. lii nii. Hmm. pour koo xamante ni tey tey jii nitu guddi dalaa jàpp. Hmm. ku loolu ku nit guddi jàpp ku dëmm jàpp. Hmm. wala koo xamante ni da ngay jékki sa yaram nga yëg ne fii kat yaa ngi fi yëg benn miti wala nga doon football jékki-jékki damm wala nga hmm. jékki-jékki gaañu wala nga ne xam nga wàllu football yi dafa doy waar. Hmm. man di nga ci gis ni ku dee. football dëgg. yaa ngi gis xam nga yooyu lii mooy liggéeyam. yi si ëpp si lañ koy liggéey mais dafa am yeneen nag yu mu àndal béjjën bi man sama wàllu yi sama wàllu la daal bi maanaam man. kii day aar. lu kii comme tey ditu guddi bu nekkoon si da koy didi. buñ lay defee noo ko ciy defee. daa am lu ñu lay solal am yu ñu lay teg tegal la cuuraay am na cuuraay yoo xamante ni yow bu ma la ko wala bu ma ko defoon ni bu ma ko ëffoon fii fépp fu dëmul nekk wala fépp fu nitu guddi nekk bu ma ko ëffee nii dañuy comme pitax du muy dalee ñëw di sab di lekk noonu la ñuy dalee di sab di lekk moom nit guddi te yii lay ëpp lu muy soppala ko tànn ñu ne kaan criquet wala dàngin wala muus bu ñuul wala muus Hmm. moom nitu gëlëm léegi yow lan nga mën a faj ci lan ak lan lan lan man damay faj ku amee rab. ku am rab waaw ku am rab dama koy faj. Hmm. koo xamante ni dañ naan jinne nekk ci yow. Hmm. boo ñëwee incha allah ci kàttanu yàlla. lañ lay wax naan jinne nekk ci yow boo ñëwee. ah billaahi dinaa ko dindi. te wala na ne jinne nekku si yow. ci maanaam ci ñaata fan nga koy dindi. à peu près à peu près am na ñoo xam ne moyen de 3 jours am na ñoo xam ne moyen de 7 jours man noonu sama liggéey bépp nag ak bu mu si mën a doon. Hmm. moyen de 7 jours moyen de 3 jours kese. soxna su bëgg jëkkër jëkkër dëgër loolu ci moom bu ñëwoon ci yow pour nga ñaanal ko mu am jëkkër àpp bi ñaata fan lay doon. waaw ci wàllu diggante jëkkër ak jabar kii bëgg jëkkër ak wala kii bëgg jabar. kii bëgg jabar dinaa ci ñëw mais ki bëgg jëkkër laa bëgg. xam nga suñ jamono bi. Hmm. mooy li ma lay wax. benn déglu. Hmm, xam nga nit guddi daf fi bari. Mm-hmm. daa am ñoo xam ne setuñ. am mm-hmm. ñoo xam setuñ eh, set nañ parce que moo fii kenn xamu si kan ngay dugg te da ngay dem si nit na ko mm-hmm. ñaanal ma. kii laa bëgg a takk wala kii laa bëgg par soxna. moom du la si xoolal wala moom même mën naa gis ne kii setul mais moom du la wax dara dalay ñaana rek bàyyi noonu. yow boo si duggee nga am jafe-jafe. boo gisee nag léegi yenn nit ñi seen affaire di dëgër seeni mbir di dëgër da ngay dëkk ak nit si koñ moom setul. wala yow ka ngay bëgganteel setul sa rawxaan mooy bañ yaa ngi dégg mm-hmm. sa rawxaan mooy bañ pour nga bañ a dugg si kooku léegi bëri na léegi sëriñ dangay dégg nit sax mu ñëw si yow ne la dama demoon si nit mu ne dama amee faru rab déedéet nit ñi faru dëgg la mi ngi si nit ñi de yaa ngi dégg mais nit ñi li leen jàpp dëgg dëgg dëgg la lenn li kese la mel ni mbir mi muy nitu guddi mooy jàpp nit ñi nit guddi yaay dëkk ak moom yaa ngi dégg nga nekk benn femme ci koñ bi yàlla def la macha allah mel nga na nga war a mel yaa ngi dégg gur ñaa ngi lay ñëwal yaa ngi dégg nga dëkk ak ñoom te yow doo leen xam léegi ñoom ñoo ñoom niti gudd yooyu dañ lay yàqal da am lu ñu lay def daa am ay affaire comme ñoom dañu am ay ngelaw yoo xam ne moom la ñuy sànni ngelaw yi léegi boo gisee ngelaw yi bari ne poussière bi dañ ko si sànni mooy takk si nit ñi léegi yow na da dem si sëriñ ne na léegi da dem si nit sax mu ne la kii li ma li ma ñaanal gisuma ko te te te kim lay wax ne ñaanal na ma sax. yow sëriñ si am na ci ñoo xamante ni danga nga leen sant liggéey du ñu ko mën ñu demaat ci ci keneen pour ñu ñaanal la yow loolu dina dal nit dina am liggéey boo xam ne munu ko mu ñëw ci yow. en tant que sëriñ di ko ñaan bëri na yow mi déggoo lu ma la wax loolu waxuma la comme ñoom ñu sant liggéey de mais ñoom ci seen wàllu boppam ay sëriñ. Hmm. bëri na si ñoo xamante ni tey si tey ji man maa leen samp. maa leen samp sama forêt bële forêt bi nag moo ma ko mais sama maama ko moom loolu par ndono la ku su àpp jeex rek da nga fay jógee suñu borom tegaat fa keneen. yaa leen samp. maa leen samp. mën ma limal kan man nag du ma leen lim. Hmm. mais maa ngi xaar si ñoom. Hmm. si ñoom. Hmm. kenn ku yëkkati kàddu jëmale ko si man bés boo ko jëmalee si man dinaa la wax. sa bopp léegi ma man ku ma lim nga nga wax ma ba xam ci bokk wala bokk. non non man moom du ma wax kenn turam nag wax dëgg neex yàlla. mais man maay tudd tur yi. déedéet wax dëgg neex du ma si wax parce que man. yaa ngi dégg jote yu ñu ak man lenn loo xamante ni damay toog ci réseaux sociaux bi. Hmm. Euh, di xaw seen sutura mais si ñoom képp koo xamante ni junga rek wax si kàttanu yàlla dinaa wax ba àddina gépp xam ne ñii maa leen samp te sëriñ samp xam nga lay mel si ñoom sëriñ samp boo ko sampee ñaari nit lay liggéey wala ñetti nit loolu moo koy taal mais keneen ku mu liggéeyal dootul baax loolu moo bari tey Sénégal fii ñoo fi gis fii yëpp xamuñ dara duñ ay sëriñ. bàyyi li ngay wax. duñ ay sëriñ yow sa Luc Daour bi nga xamante ni équipe bu mu yor mu jël coupe keroog bi mu demee équipe nationale bu Sénégal gis nga la mu fa def ci final bi. gis nga fii sëriñ yi nekk Dakar. Hmm. buñ nekkoon sëriñ yi nekkoon Dakar. borom Gambie Idrissa Ndiaye. Euh, buñ xamoon dara Idrissa Ndiaye dama koy gis nii rek. xamoo presse bi xaw ma Idrissa Ndiaye. xamoo ko xaw ma ko. yaa ngi dégg hmm. mais sëriñ yi nekk Dakaru Ndiaye gi yëpp. Hmm. bu fekkoon ñoom xam nañ dara Dakaru du beekoor te Ndakaaru day gën a dellu ginnaaw loolu lan moo ko war a sëriñ su bëri si nekk fii di wax lu amul di def loo xamante ni amul rab yeeg jinde yi nga xamante ni dañ leen naan tëj si ili te xamoo ko lan lañ ko tëjee nga koy woo di ko bàkk di ko tuural deret ngay tudd jinne jinne jinne jinne naan damay faj jinne ba jinne yooyu yëpp rek ci ñëw di taal di def ay accident ñoom sëriñ si nañ wàññi teg si di nax nit ñi di fet nit ñi ñan ñooy naxaate. bëri na daa mel ni ñiy naxaate xam nga leen mais nangu woo leen wax da nga naan diw dafay naxe wala diw soit comme tey ma tudd ku mel ni Idrissa Ndiaye wala Serigne Mor nga xamante ni ñoom ñooñu dem naa seet si leen ñu waxtaan ku mel ni euh, Moustapha Dramé ah ak Kunkande nga xamante ni ñoom ñooñu saa su ne da nga leen di gis ci réseau sociaux yi ñu téye ko nii saa su ñu waxee Sénégal gépp daw may leen nopp ñooñu lan nga mën a wax ci ñoom. xam nga tey bi maanaam gis nga nit gis nga nit boo yoree benn melokaan bi ba nit ñi ràññee ko ci yow. Hmm. Eh? yow sa bopp yow doo koy xam. yaa ngi dégg. Hmm. booy jaay lu baaxul. Hmm. booy jaay lu baaxul xam nga kenn du ñëw. ñoom ñooñu kan moo ciy jaay lu baaxul. ah. ah yàlla xam doy na wax dëgg euh, wax dëgg nag sëñ duñ mën a waxtaan man ak yow parce que man damaa bëgg bu ñuy waxtaan ñu waxtaan ci li nga xamante ni moom ngay gis parce que gis nañ fi sëriñ bu toog ne diw ak diw ak diw bu deewee safara la jëm. loolu gis nañ ko gis nañ fi sëriñ bu toog ne équipe bi suñ ma ko joxee ma ànd ak ñoo war a àndal indi Sénégal ndam gis nañ fi sëriñ bu toog Sénégal finaalu mu ne nañ saxle saraxe ay sareetu nen ñu jël ay sareetu nen di ko saraxe loolu yëpp gis nga ko mais da ngay wax lan moo ci baax ak lan moo ci bon ñiy seetaan mun a xam ni kat kii vraiment dawul li nga xamante ni mooy responsabilité mais boo bëggee défendre sëriñ sépp toog ba pare naan ñii dañuy naxe dañuy naxe duñ xam ñan ñooy naxe man. Hmm. ak ñi may seetaan. Hmm. képp ku ci bëgg xam ñan ñooy naxe. Hmm. kontaagal borom sant yàlla di nga xam ñan ñooy naxe. dinaa la wax diw mii day naxe. mais boo ko waxul fii kon day mel ni. Euh, écran bi kon kay sëñ bi am na looy ragal nag. de man bu dee am nga xam-xam am na loo xamante ni dawoo ko. dawoo dara war ngaa mën a taxaw ne diw ak diw li ñuy wax amul. xam nga bi maanaam yow. doo doo ma wax loo man lu ma bëgg la wax wala doo ma def loo man. ma bëgg la def non man forcé ma la pour nga wax loo bëgg la wax mais damaa bëgg ci biir waxtaan bi comme xam nga ni Sénégal am na ñoo xamante ne ay sëriñ lañ dañuy toog ci télé bi di wax loo xamante ne amul. waaw te yow xam nga ni ñi kii li muy wax amul da toog nga ni kii ak kii ak kii li ñuy def nañ ko bàyyi parce que sénégalais waruñu man damaa jàpp ne intérêt Sénégal moo la war a gënal intérêt sëriñ soosu. man tey jii xam nga la moom indi tey ci presse bi dimbale bi may dimbale sama askan. Mhm. ak social bi ma séq ak ñoom. moo ma indi tey ci presse bi. Mhm. parce que dama am benn taxawaay bu rëy bu ma am sama askan man te dama bëgg a dimbale sama réew. yaa ngi dégg. Mhm. tey jii ñiy naxe nit ñi ràññee nañ leen. nit ñi xam nañ leen am na solo jërëjëf xam naa ni sëriñ bi vraiment ñi nanguwul dugg ci ñuy waxtaan ak ñuy naxeeg yu mel noonu mais dañuy dugg si ci président bi nga xamante ni moo fi nekk président Macky Sall parce que jëli naa ay sëriñ. Euh, vraiment ñu wax ci li nga xamante ne jot na ko dund ci réew mi ak mandat bii di ñëw am nga ci xam-xam. waaw wàllu woowu. am na loo sant yàlla. am na loo ci gis gis nañ ci. gis nañ ci. Hmm. gis nañ ci. ci lan waaye wàll woowu du ñun man dooma koo xamante ni. Hmm. du lu ma gisee dama koy wax parce que damay bañ waxoon nga walla defoon nga. waaw ah, sëñ bi nag vraiment wax dëgg loolu li ngay wax nii nag wax dëgg man mënuma ko xam parce que moo nay seetkat nga wala ñaankat nga nga gis loo xamante ni mu ngi ñëw ci réew mi nga war ko mën a alerter war ngaa mën a wax ni lii dina xaw Sénégal lii ak lii dina xaw Sénégal parce que ñoom ñooñu ñëpp ku ci nekk rek ki ngay wax nii jëli naa leen ñu wax lu mel noonu mais président Macky Sall lan nga gis ci mandat bi di ñëw day am troisième mandat wala doo am gis nga am réew. Mhm. am réew. Mhm. ni nga koy yore. Mhm. moo lay fal. ni nga koy yore moo lay ni nga yore réew ma. moo lay fal. réew ma mi. ki mu war a fal. incha allah nañ bàyyi ba deux mille vingt quatre incha allah. waaw na président euh, jug ci réew mi. waaw na jug ci réew mi. te réew mi. ndaw a ko a yor. ndaw ndaw moo ko mën a yor xale la de. non non ndaw moo mën a yor ki màgget la. président ki yor suñu réew mi nii màgget la. Hmm. mais suñu réew mi ndaw ko mën a yor réew mi jag te incha allah bu ko yoree lépp ay baax. ban ndaw nga jàpp ni moo war a yor réew mi actuellement. Ousmane Sonko. da nga koy campagnal wala da nga koo gis. dama ko gis. dama gis ne hmm. incha allah ci kàttanu yàlla 2024 Ousmane Sonko mooy nekk président. Hmm. te du am tirage du am dara direct lay doon. maanaam bu ñu voté rek première kii bi Macky Sall. day ñàkk day ñàkk Ousmane Sonko toog. Ousmane Sonko toog parce que réew daa am lu koy yor. mais loolu information bu yéeme la sëriñ bi. waaw. incha allah. Hmm. Mhm. maa la wax lii. kon président dina dem troisième mandat. du toog bu demee du toog Ousmane Sonko incha allah. parce que ndaw social la. Hmm. Hmm, ndaw social la moo tax. Ousmane Sonko quatrième président Sénégal de la. République incha allah ah loolu de moom yéeme na moom président. incha allah macha allah kàggu. ah léegi fi mu toll nii ñu ñëw tuuti ci ci wàllu làmb am na ay mbiru làmb yoo ñaanal. du may ñaanal nag comme mbër yi nii di si arène bi am na nag ñu may ñaanal si arène bi mais du mbëri comme yi ñu ràññee. Hmm. waaw te damay ñaanal tamit ay mbër mais damay samp ay mbër man damay samp ay mbër. Hmm. samp ay mbër di samp ay joueur waaw léegoo léegi nit sama mboromu sëriñ ñëw indil ma ma sampal ko ko waaw damay bëri bëri na si wàllu woowu moom ñu may si ñaanal. Hmm. samp nooy sampee mbër. wala ay joueur yu mel noonu. samp comme bi maanaam dama lay samp ne la di nga ans yoo xamante ni yëpp dañ la koy dégg wala di nga am dix ans yoo xamante ni ñu lay dégg ci làmb. sëñ bi de man am naa jour bu mën a koo jox nga sampal ma ko. am na équipe bu new taan boo xamante ni bu mu mag boo xamante ni fii. Mm-hmm. daaw pare woon na sax dëgg la de mais bu mu ko bi ñu ko indee si man dama ko samp man leen incha allah mooy jël coupe Hmm. te benn at rek laa ko sampoon may leen day jël coupe bi. yow ban équipe nga mos a jox coupe équipe boobu nu mu tudd. man joxuma ko coupe mais man maa ko samp dañ ma ko indil. nga samp ko mu man ma samp ko nga ni jël coupe. ma ne leen day jël coupe. mu jël coupe mu jël coupe. kon bi yaa ko bi nag. mais dañ ko indi si man sama moromu sëriñ moo ko indi si man. sëriñ boobu kàlla. non non nag du ma ko wax moom. Hmm. waaw mais football moom ñëpp xam nañ ne Idrissa Ndiaye moo ci teg tànk moom nee na football moom dama koo mën bokk ma ci ku yàlla bind. moom moomu. Hmm. moom Idrissa Ndiaye. Ah. moom dasi si feeñ. mais moo si gën a néew pepp la si ci wàll football xam na ko bu baax pepp la si bëri na si ñoo xamante ni tey ji déggoo leen voilà. Hmm. kenn du ñoom pepp la si moom. moo si gën a tuuti Idi de Idi de dem naa këram fekk fa ay photo yu dul jeex ci biir saalam mu naan équipe bi maa ko jox ko lakkale la bëreel. xaw ma la fubalal équipe bi maa ko jox coupe équipe bi maa ko jox coupe équipe bi maa jël cadet senior xaw ma euh, vétéran yëpp moom war na ma ay preuve mais yow fi mu toll nii waxoo ma équipe bi nga xamante ni jël na coupe bi nu mu tudd ak ñaata équipe la ak yan équipe nga yor. yow man moom man. Mm-hmm. comme man sama personnel man may liggéeyal équipe. Mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. comme ay équipe kii la ne équipe yi nga xam ne ràññeewuñ leen bu baax. lu mel ni sama koñ yenn tubaab jalaaw équipe yi nekk foofu laay liggéeyal mais lu ko weesu ay samp jour comme jour mu nekk pour bëri na ay boo yoo xamante ni 2020 euh, bi ak 2021 bëri na si boo yoo xamante ni dem nañ maa leen samp. nu ñu tudd wax ma. pour ñuy seetaan nga xam ne xamuñu joueurs yi yow yaa leen samp nga ne ma. bëri na am na booy boo xamante ni kii la Cheikh Cheikh Cheikh Ndiaye. Cheikh Ndiaye Cheikh Ndiaye. fu muy football. Cheikh Ndiaye euh, Qatar. Qatar la nekk la nekk bu ak euh, benn booy bu ñu naan Safi. booy bi dañ nakaan safi hmm. xam nga man moom daanaka man su ma la suñ liggéey ci wàllu boobu ba pare rek hmm. bu ñu waxante lu ñu waxante rek ku nekk day dem hmm. waaw yow maanaam léegi boo leen di samp da nga leen xaalis wala da ngeen di liggéey ba pare nga doog leen fay waaw ça dépend nag man moom sama liggéey sama liggéey ma nii la yaa ngi dégg man boo ñëwee duma la liggéeyale sa poos dama lay liggéeyalee ci sa soxla su ma la liggéey la bañ pare nag. Mm-hmm. yow may waxuma la danga may fayde mais danga may. mën nga seetal nit en direct mu woo la nii léegi nga seetal ko mën nga ko. waaw man damay seet en direct. ci lan ngay seete pettaaw xolitu gerte ci ndox ci lan ngay seetee. man damay seet si ndox damay seet si jalañ euh, damay seet tamit ci ay sondel mm-hmm. damay seet ci kurus damay listixaar mm-hmm. waaw. sama sama cameraman bi mën nga ma ko seetal fii. non non instant nag dañ nekk ci émission. Hmm. te man dooma koo xam ne damay wane di wane wu. Hmm. mais bu dee lu ko soxal la na ñëw lépp loo xamante ni bëgg na ko xam wala bëgg na ko gis ci wér-gu-yaramam nañ ko génneel. waa bitim réew yi ku nekk bitim réew woo la téléphone bëggoon tey nga seetal ko ci wàllu wér-gu-yaram ak yooyu ñaata nga koy defee. waaw man sama seet. nga nekk bitir bi nga nekk Sénégal la. ñeenti téeméer ñeenti téeméer kese la. Hmm. amul kii nekk bitim réew amul kii nekk man ñëpp laa bokk yemale. Hmm. ñëpp a bokk yem si man. yaa ngi dégg. Hmm. man awma xaaj ak seet man noonu laay liggéey man. Euh, léegi ki nekk bitim réew seet gi nu muy demee dalay woo téléphone nga téye téléphone bi seetal ko wala da koy jox bis bis boobu bu jotee nga wax ko li nga gis. man képp koo xamante ni yaa ngi bitim réew. bëgg ma seetal la. si kàttanu yàlla da ngay téye sa téléphone boo dugalee xaalis ba ñuy seetee ba ñu jël xaalis bi wan la ko ma teg ko fa ma la koy seetalee incha allah sa téléphone ngay téye appel vidéo laa koy def wala ma def ko appel ngay dégg te bu ma lay seetalee nga si jiixaat damay taal li may taal wan la. Mm-hmm. dëppal la yow ngay gisal sa bopp. moom sama liggéey moom yàlla def na moom dafa wóor parce que dañ ne ku xam la ngay def wala ku man la ngay def doo ci sonn doo lenn loo ci jaaxle. Mm-hmm. mais des fois boo amee cas bu doo am cas la xaw a metti wala bu jafe ci yow nga dem ci keneen di ko di ko di ko sant naan ko mu ñaanal parce que Sénégal léegi bëri na ay courtier sëriñ de. bëri na courtier sëriñ courtier yooyu yëpp ngay gis dañ leen samp sëriñ sëriñ social dañ koy samp kon ñu ñuy sampee mbëru làmb hmm. tey jii bëri na si sëriñ yi nga xamante ne ñu ngi fii di def courtier mën naa laa waatal ne lii mbër yi mën a hmm. toog ñaanal ko nit ñoo mënuñu kaa ñaanal nit. Hmm. parce que nañuy lu ñu utee bëriwul bariwul parce que bu dee kii ñu ngi koy sampalee nag am na si ñoo xamante si mbëri ñu nag am si ñoo xamante ni béy même sëriñ noonu. Hmm. samp dafa samp sëriñ dafa kii. lu xaw a metti quoi. doonu lu metti hmm. samp yi gën a metti mooy ban samp mbër ak samp joor ñaar yi rek a xaw a difficile te doonu problème boo xamante ni c'est que si nag. Hmm. xam nga dafa am nit ñoo xamante ni seeni biddéew day leer. Mm-hmm. xam nga Sénégal dangay nit sax day ñëw ne la seetal ma ni nga gis ay mbiram mu leer yaa ngi dégg mu nekk nit koo xam bidéewam day tàkk. Mm-hmm. mais moom da lay expliqué ne la man de fa ma demoon dañ na dama amee faru wala léegi te moom ay mbiram noonu la leeree am na ñu ñoo dañ neex a ñaanal. Mm-hmm. dañ neex a ñaanal yow booy jëflanteel ñoom rek. du yàgg ñu gis ko parce que dañuy neex daa am ñoo dañ neex a ñaanal. dañ neex a ñaanal waaw ñëw ci làmb làmb actuellement bari na combat yu taxaw. boo xoolee Eumeu Sène ak Lac de Guiers taxaw na boo xoolee diggante Bombardier ak Balla Gaye taxaw na Modou Lo ak ki nga xamante ne mooy Ama Baldé taxaw na Sokh gàmm gay taxaw na bari na yeneen combat yoo xam ni taxaw nañ léegi combat yooyu li ma ci bëgg a gis mooy dinañ ko bëre ren walla combat yi ren Covid bi day continuer ba saison làmb du dox wala Covid bi dina fi jógee làmb continuer wala bu ñu bëree ñoom ñoom ñooñu ñëpp ku ci nekk bu bëree lan nga ci gis ci combat yooyu wala gisagoo ci dara. waaw làmb ji sant yàlla gis nañ ci. Hmm. waaw gis dañ ne combat ëmm kii ëmm seen Lac de Guiers. Hmm. bu fekkee bëree nañ ko ren. bu fekkee bëree nañ ko ren incha allah. deux mille vingt et un mille vingt et un. ëmm seen day daanaan daan. waaw parce que Lac daam loo xamante ni moom moo koy yàqal mooy wax làmmeñ moom moo te moom mooy yàqal boppam. Hmm. waaw te su bëree si atum ren ji dañ koy daanaan incha allah. Balla Gaye Bombardier. Hmm. Balla Gaye day daan Bombardier. nu mu koy daanee da koy dóor mu daanu. ah combat boobu daal gis naa daal. ah sëñ bi yow nekkul da ngay rek. mais hmm. sëriñ bi kat naan diw nii la koy daane nu koy daane. combat daal dina metti dina am dóorante. waaw dina am songante. deret dina dina ci deret moom du ci am. mais dina am dóorante songante dina am. Hmm. jaxasoo moom dina am combat bu neex lay doon moom combat boobu ak hmm. combat Ama Baldé Modou hmm. ñaari komba yooyu ñooy combat yi gën a. Ama Baldé Modou nu muy demee. combat Ama Baldé Modou Lo combat boobu Modou Lo day daan Ama Baldé. incha allah nu koy daanee. jël bu rafet daji songoo mu nax ko daan ko. <laughs> ah bi loolu yéeme na de. Mm-hmm. maa la wax léegi. soq gàmmu gay soq gàmmu gay euh, gàmmu day daan soq. nu mu koy daane. combat boobu moom combat kii rek. combat la moom. yii rek foon yi dóor yi dóor dóor rek Adama Diouf wulli combat bu bu neex boo xamante ne àdduna bépp koy xaar Adama juuf mbëru séeréer wulli wulli waat mbëru bawol bawol bi. ah wulli ak kan. Adama Diouf ak Adama Diouf. Hmm. Adama Diouf moom day daan wulli <laughs> sëñ bi déedéet waay wulli sama xarit. waaw wulli de dañ koy daan. parce que waxam dañ koy dóor bu daan wala dañ koy plaqué wala dinañ ko dóor danañ ko daaneel moom wulli. bu ñëwoon ci yow doo ci am pexe pour mu da mu changer combat. ah mën na nekk kii mooy borom sant yàlla bu ñëwoon man nañ ko samp ci kàttanu yàlla day jël làmb jo làmb dañ koy dippan lépp loolu ma hmm. waaw parce que yooyu làmb mooy mbiru jinne foofu la jinne nekk nag hmm. boo bëggee gis ay jinne dëgg hmm. dama ci làmb mais comme sëriñ yi li ñuy wax am na ay nangami jinne jinne boo ko bëggee jinne yu bari dama ci làmb boo amul chance jinne dina la fàdd yow léegi ku mel ni euh, ñett yi moom dama la koy dama dajaleel euh, moo géet xam nga ko waaw xam naa ko ñun doo gis ci moom temps mu ngi nekk États-Unis di may xaalis nii nañ day puuk réew ñii nee nañ am na xaalis ñii nee nañ amuñu xaalis yow boroom xam-xam lan ngay gis ci moom. waaw mu nekk loo xamante ne dafa nekk ndaw ndaw lu yàlla wërsëgal. Hmm. yaa ngi dégg ndaw lu yàlla wërsëgal muy def social muy def social ngir askanam. Hmm. ñu war kaa mën a jàppale. ñu jàppale moo gën. ñu jàppale ko ñaanal ci nan lañ koy jàppale. ñaanal ko dooleel ko. ci li muy def noonu. Hmm. waaw parce que yombul ci réew mi parce que bëri na tey jii ñoo xam ne ñu ngi États-Unis hmm. yor nañ loo xamante ni mën naa ne sax moo ngir yoruñu ko yoru ko. Hmm. waaye duñ ko def yaa ngi dégg même bu alalam baaxul sax dañ ko war a ñaanal mu nekk ndaw. loo xamante ni ku jar a ñaanal la. même bu alalam baaxul yow da ngaa gis ne alal bi baaxul wala da ngaa njort. déggoo la ma ne la même bu alal bi baaxu sax dañ ko war a ñaanal parce que bëri na si tey ji ñoo xamante ni hmm. ñu ngi foofu yàlla wërsëgalal na leen te mënuñoo def social fii si Sénégal moom mu koy def kon dañ ko war a ñaanal encouragé ko hmm. mu nekk xale boo xamante ni ku soxla jàppale la tamit incha allah jërëjëf sant yàlla maa ngi lay sant bu baax di la gërëm xam naa ne jël nañ ci waxtu bu bëree bëree bëri mais maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax waaw hmm. ñu sant yàlla Euh, di lancer waale benn message. Hmm. ku ci mel ni Waly. Waly Ballago waaw. Hmm. ak euh, Mo Gates. Hmm. ak euh, Aba ak Ousmane Sonko. Aba no stress. waaw ak Ousmane Sonko. ndaw yi nga xam ne dañuy def social. te man borom sant yàlla man social moo ma tax a jot ak jàppale sama askan. ma bëgg ngeen jàppale ma. ngeen jàppale ma bu baax. parce que man ci li may yëngatu nii. lii damaa koy doo gis. ak ma social bi may def nii. Euh. moyen la laaj. dëgg la. parce que donte donte doon naa sëriñ rek. Hmm. jomb naa wax. ndeysaan. waaw man nii laa toll. dëgg la nii laa yem. di sàkku si yéen. lu ngeen ma mën a jàppal ci social bi parce que da suñu askan. sëriñ bi nag vraiment bëgg naa la xam nga lu tax ma bëgg la tey bu la neexoon nga toog ne du ma du ma woo kenn wala mais tey la c'était la première fois. ma gis ab sëriñ bu ñëw toog ne maa ngi woo diw ak diw ñu ñëw jàppale ma parce que dama bëgg a def social kon am na loo xam ne ñaan mën na ko mais am na loo xam ne du ñaan moo ko mën da ngay wax ngir ñu fajal la sa soxla. waaw jërëjëf. parce que euh, gis na nit. Mm-hmm. nit taam loo xam ne da nga koy euh, rëy. Mm-hmm. te rëy ku mu nekk ci rek. yàqu nga te dafa bëri si ñoo xamante ne dañoo rëy. Mm-hmm. dañoo rëy ba ñoom fi ñu nii bu ñu bëggee wax seen soxla dañuy fen Mm-hmm. dañuy wax loo xamante ne amul tey jii nit ki dara du nekk si moom wala nit ki dara du ko jàpp ñu ne diw la génnee sarax. Mm-hmm. après sarax boobu da ngeen di gisee yéen ñaar si pet. nga topp di ko laaj xaalis man duma genre boobu. Mm-hmm. man jomb maa wax sama boob parce que sama askan toll nañ foo xam dañ laa dimbale dimbale bi mooy lan dañuy am feebar yu nekk si ñoom. te feebar yooyu boo ko dindee si ñoom ba pare dañ leen di war a opérer. dindi deret yi nga xam ne mooy deret yu dee. parce que nitu guddi yi lu ñu leen di def. te lañ la ne def noonu boo ko dindee ba pare daa am deret ju dee juy des seen yaram mhm. te loolu foog ñu dind ko te loolu mooy ko def te man nekk naa nit koo xam ne du fajee nit ci poosam mhm. tey tey ji bari na nit nit ñi fii dangay dem ci sëriñ mu ne la yow say mbir daa ubbu léegi say mbiram day ubbu nga bëgg kaa laaj cent mille francs mhm. te kooku day reyante indi cent mille francs nga jël ko yow lekk ko te yaa ne ko ay mbiram daa ubbu te man liggéeyuma noonu. Mm-hmm. man damay jàppale sama askan. man ci social lay dox parce que damay xool ni sama maam yi daan liggéeyee. Mm-hmm. nañ ko daan doxalee. Mm-hmm. ma di ko doxalee noonu parce que samay maam dañ daan dimbale nit te duñ ci séntu dërëm. dëgg la man damay dimbale nit ñi te séntu ma si dërëm. su ma amee nag man sama soxlee bopp wala lépp loo xam ne dama ko bëgg a def jëmale ko sama askan. maa ngi koy sàkku si ñi nga xamante ni ñooy ndaw réew mi te di def social. di ko sàkku si ñoom képp koo xamante ni am nga yéene man ma see jàppale nga jàppale ma si. Mm-hmm. si ñi ma woo nii léegi. Mm-hmm. ñoom ay ndaw yu social lañ. dëgg la. te man dama leen boole si sama bopp. jërëjëf waaw jërëjëf sëriñ bi. jërëjëf ma lay jaajëfalaat bu baax a baax di la mm-hmm. bàyyi nga tàggoo rek su ko defee ñu nga ñaanal ñu ñu yeewee ko. waaw man sant yàlla. ñu sant yàlla di wax alhamdulilah. waaw di sant yàlla di sant nag monde entier di sant tamit. képp koo xamante ni yaa ngi yaa ngi doon. bàyyi xel mm-hmm. di ñaanal euh, waa Wassare mm-hmm. fépp fu ngeen bëgg a yegg yàlla na la fa suñ borom yeggale def leen euh, chaîne def leen télé bi nga xamante ni mm-hmm. monde entier lay doon ngeen jëf jërëjëf euh, mbokk yi gis ngeen sëriñ sant yàlla lañu dalaloon tey ci wasaare TV ñu leen di jaajëfalaat bu baax a baax a baax ba ëllëg incha allah ndax tey nag yaa ñu seet si yaay kilif yaay sëriñ bi fi njëkk a ñëw seet si ñu ñu lay jëfalaat bu baax a baax di ñaan yàlla na suñu borom yokk ko xam-xam bi ba lépp lu nga ci bëgg rek suñu borom defal la ci lu kawe sa njort mbokk yi loolu lañ leen indiloon di leen jaajëfal di leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ni moo du tàqali ko ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew jërë ngeen jëf